ci ngeen ni soog a am problème nag ndax problème amagu leen ko bés bu seen bëbët yeggee ci ngeen ni soog a am problème